tey nag ñu amoon xew-xew mooy showroom bi nga xam ne dañ ko ubbi fii ci Touba ñu woon nag suñu mbokk commercant yëpp euh, fii ci Touba nag ñu am fii koo xam ne mooy suñu jëwriñ féete ñu fi muy sëñ Fallou Galas Xuma di président assise section Touba euh, jiite mboolem commerçant yi féete Touba moo tax bi ñu demee ba war a ubbi lu mel nii ñu ne kat euh, ñoom nañ leen ko yëgal wax dëgg yàlla ñu def forte délégation ñu rafetlu taxawaay boobu Eh, mbir mi nag ñaar rek motax ñu def ko moy dekk bi am ñu am fi yéen ju yaato yaato euh motax def investissement fi investissement bi ni benn bi tamit ñu fexé ba créer ay emploi parce que ñu créer emploi comme ci commerce bi lañ nekk ci lañu tambulé mais suñu yéene moy taxawal fi industrie euh commerce bi dañ dañu commerce légui dañu bëgg commerce euh changer def commerce moderne manam ba nga xamné ne li nga daan gis bitim rew nga xam ne ci ben centre commercial wala supermarché euh, dox tranquillement fek fa marchandise bi nga bëgg yépp ci njëggu yomb loolu lañ fexé tay ba jëmul ko fi ci dëkk bi euh, lépp loo xam ne dafa jëm ci walu bâtiment euh, second œuvre dañ ko fi def tàmbalee ko ci carreau tàmbalee ko ci sanitaire ak polymerie ak électricité ba ci meuble ak peinture Euh, ci njëg yomb di ko def en ak demi gros ak ak ak électroménage aussi en même temps dañ defaale solaire euh, ay batterie lithium onduleur am nañ tamit équipe boo xam moom dañu def installation bi euh, loolu daal actuellement nii ci loolu lañ commencé gun ñoo ngi ciy woon ak waa dëkk bi yëpp di wax ne mbir mi seen yëf la ndax comme niñ ko waxee rek ay ndaw lañ di liggéey waaye suñ yéene leen rek la mooy jàppale dëkk bi jàppale dëkk bi jàppale ndaw yi dëkk bi ngir nit ñi mën a am ay xëy waaye tamit ñu bëgg a def exemplaire wane na ne commerce du ci marché rek lañ koy defee euh, ndax gis ñu encombrement yi am ci marché bi war ñu jàpp na ci euh, ci biti ci ëpp espace kon war nañ mën a isolé wu tuuti jéem a créer ay centre commerciale jéem a créer ay showroom bu ko defee dëkk bi da xat-xat dina wàññeeku mais clients yi tamit aussi dinañ mën a circuler tranquillement en même temps ak prix yoo xam ne prix yu abordable lay doon prix yu yomba yomba waaw idée bi nag mën naa ni c'est idée idée la du ci man kese la jógee parce que dañu créé benn association association boobu noonu mën naa ñi ci ñi ci nekk ñëpp ay acteurs lañ di yëngu ci wàllu économie association boobu nag à chaque fois ñu dañuy daje di waxtaan di xool naka la ñuy def pour jëmale commerce bi kanam naka la ñuy def pour créer ay marché yu bees parce que dañoo gëm ne li nga xam ne moom moo fi newoon lu ba dafa war a changer idée bi mën naa ni euh, peut-être man dama am nañu ma ko jëkk a réaliser sax avant man parce que tey am na ñeneen ñoo xam ne ubbi nañ lu mel nii te teewul ñun ñëpp dañoo lëkkaloo di di liggéey ci suñu biir di di jàppalante euh, loolu moo tax mën naa ni idée bi c'est général ci depuis Aziz samp ba léegi ñu ngi ciy liggéey ensemble te yemuñu foofu rek parce que dañ ne euh, ñu ngi waaj sax créer ay marché yoo xam ne euh, dafay génn dëkk nekk ci buntu dëkk bi nga xam ne marché grossiste lay doon nga xam ne lépp lu waay soxla rek boo duggee ci marché boobu da nga a am waaye yemuñ ci loolu tamit naka la ñuy def pour booloo ci suñu biir ñenn ñi ak secteur ba ñu nekk ñu mën a dajal dara pour créer industrie te te loolu li tax ñu def ko mooy ñun dañoo gëm ne ñun ñun développement développement wu réew mi euh, ñun dañ ci war a participer bu baax a baax a baax ñu gëm ne daal ñun li ñu bëgg mooy du ñu laaj lu ñu suñu réew defal mais ñun suñu tuuti mooy ñu lan lañ defal suñu réew loolu mën naa nag wax dëgg yàlla tey su su ma amee réussite bi ak xalaat bii nii équipe ma àndal ma naa si ñoom laa jëlee idée yooyu ba tax ma ndax euh, man amul lu dul euh, sama lépp la Euh, yàlla na yeex waaye suñu jóge woon sax fii lañuy ñuy def suñuy waajur fi la nekk fii la ñuy jànge lépp ñu am dëkk bi moo ñu ko defal euh, suñu yaakaar nekk fii muy Serigne Touba euh, kon nañ jàpp lu ñu gis wala lu ñu am bala ñu koy def fenn nañ ko jëkke tuubaa gi ba pare dëkk bi doon dëkk boo xam ne c'est pas la première fois ñu fi investir xëy na lii dañ ko gën a def rek pour gën a yaatal suñu liggéey waaye dañu jàpp ne lépp lu rafet ci dëkk bii la jekk dañ jàpp tamit am njort bu baax a baax fii lu fi waaye di def te am ci yéene bu rafet te sellal ko suñu borom nan la ci jàppale ba fa nga ci bëgg a àgg nga àgg ci waaw Bercy bi actuellement nii mënaguñu ko xayma parce que am nañ ay partenaires yoo xam si moom la ñuy liggéeyal comme ni ma la ko expliqué rek ginnaaw bu ñu amee idée bi commencé investissement bi dañuy liggéey ak ay partenariat mooy ay partenariat yoo xam dañu nekk extérieur waaye en même temps ay partenariat yu nekk ci biir dëkk bi parce que commerce bi amoon bu njëkk ñëpp benn lañ benn link man marchandise bu ma bu ma jeexal dama man dama sama benn xaritu commerçant jël ko fa yenn commerçant aussi marché bu ñu soxla tax ma am ko bu ñu ñëw dama leen koy jox nga xam ne kon essence lay doon euh, mais euh, début rek euh, donc lépp lu mu laaj nag ci investissement tañu man ko des na ko ci def waaw kàddu gu mujj gi di wax ni nañu góorgóorlu ci liggéey ndaw ñi dama leen soññ nañu góorgóorlu ci liggéey parce que képp kuy liggéey wërsëg yàlla moo ko yore képp kuy xëy rek nekk ci dara di góorgóorlu bu suñu borom man na la ci dimbali parce que li ni xewñu xey rek euh aksi fi mais am jaar-jaar jaar-jaar yoo xam jaar-jaar yu tar la mais ci dimbalu suñu borom ak gëm-gëm euh, moom moñu andi fi tay euh may sante ñepp nak waaye wax digal di jël sama ngërëm rek ko fallu mu tegal mo ci loxo commerçant yépp na fofu la daanel sama cadeau jox señ Cheikh awbal Balla Jaxate moom tamit muy jambar ci assis di kenn ci assis vraiment di am ay xalaat yu rafet euh, surtout ci la ko waxee woon sàng mooy que idée bi ma am xalaat xalaat la boo xam si dañ ko xalaat à l'interne da koo génnee ci biti kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Cheikh Awa Balla Diakhaté président commission communication ACIS section Touba euh, ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen char di wax ci turu président Fallou Khouma mi nga xam ne mooy président euh, section bu Touba di nuyu sëriñ Khadim mi nga xam ne mooy président national bu assis ci jëf ji nga xam ne daf koo jëf. yaakaar naa jëf ji bu ko jëfee comme ni mu ko waxee ci kàddoom am yéene la ko jëfee ak li nga xam ne moom la sëriñ bi ñaanoon ci Touba mu bokk ci ñi koy jëmmal euh, sëriñ bi lépp loo xam ne dafa baax nee na fu mu nekk dafa jaar waaye fii la jëm si kon yaakaar naa koy sun borom feexal nga am dara war ngaa bokk ci ñi koy jëmmal ñi ci am kontaan nag bi nga xamee ni moom mii dafa bokk ci association bi nga xam ne mooy assis nekk ci membre fondateur yi waaye nekk président bi kon bu defee lu mel nii ñun ñi nga xam ne ñooy membres yi daf ñuy soññi parce que taxawal na loo xam ne dëgg la ku ne xam na ne Dakar neex naa investir ah, rentabilité bari na fa trop waaye nit it fi nga dëkk da nga koy jëmbal wane fa sa bopp eh, jàpp naa ni lii nga xam ne def na ko fi ñi fi ñëw tey gis ko bu ëllëgee dinañ jéem a jaar ci tànkam taxawal lu ni mel kàddu gu mujj daal ñi ngi koy ñaanal li tax mu jëf ko fi yàlla na ci dajeeg ndimbalul sun borom ak tawféexi Serigne Touba. ba len lim ci def lépp bu mu ci réccu dara sunu borom defal ko fannu gudd defal ko wér ba bu ci yaakaaroon téeméer yàlla na ci am junni bu ci yaakaaroon junni yàlla na ci am fukki junni ñi ngi ko koy ñaanal te ñi ngi ko koy yéene te nañ ci am contentement ah, di wax ne daal xalaat bi daal rafet na trop fi mu ko indi it rafet na trop te yaakaar na ne yaakaar yaakaaram te tas ndax Serigne Touba ah, kenn du ko yaakaar defal ko lu mel nii jëmmalal ko mel nii taaral ko lu mel nii sa yaakaar tas ngi sant ñëpp di gërëm gërëm ñëpp jërë ngeen jëf